ci réew mi juddoo fi yaroo fi màgge fi fii la ñu jàngee fii la ñu semee fii la ñu dalee métier fii la ñu fii la ñu duggee ci waay fii la ñu ubbee entreprise taxawal jiite mbooloo waaye fii nag tey la ñu tàbbee ci politique bu mag tuddee ko ñaar gën a wóor lan moo waral ñaar gën a wóor damay waxtaan ak sama soppi bii di honorable député Moussa Sall mu may wax wax bu rafet ci président Macky Sall di ma wax ni président Macky Sall liggéey ci réew mi te amaana sax maa ngi ci réew mi di fi yeewoo di fi lekkee di fi naanee te bàyyi moo na lu mel nii ci réew wax Sénégal yi président Macky Sall liggéey ay nekk ci dëkk bi te ko loolu nag man xaw ma fëgg ci kanam ndax jëf yi ma gis ci bi ma tukkee nekk bitim réew di ko gëstu ci internet bi gis projet yi nga xam ne moom la président Macky Sall taxawal yii mu taxawal ko ca ba mu yegg na yii mu taxawal ko te yeggagul te mu nekk ay projet yoo xam ne lépp njariñu réew mi la du njariñam ndax bu fekkoon njariñam boppam la du ko yóbbu deux mille trente Sénégal Émergence ku ne xam ne ay projet la yoo xam ne bu ñu ko tàmbalee balaa moo jeex dana yegg ci 2035 te ku ne xam ne ne président buy toog 2012 di am mandat ba 2035 amul fenn kon président réew mi ko yor bi ma waxtaanee honorable député Moussa Sall moo wax ma ay jëf yu bari yu président Macky Sall def fii Sénégal xat-xati réew mi ak yitte yi ak xëy daw dépense dana la jàpp ba doo ko tal ngir am concentration boobu ngir mën a toog ci internet ngir mën a xool l'œuvre du président Macky Sall waaye nag bi ma nekkee France ci sama yoon bu mujj bii am formation bu ma ko def def fa ñetti weer bis bu set ma yeewu dugg ci internet bi gëstu jëfi président Macky Sall bi ma xoolee li fi président def lépp dama mi ci laxasaayu takk sama digg dugg ci fi nga xam ne mooy ci géew bi fas yéene jàppale président Macky Sall moo tax ma ne ñaar yooyu woon lu faral président Macky Sall kenn bu ñu yàkkamti na nu ànd ak dal te ñu xam ne président Macky Sall liggéeyal na réew Sénégal ku xamul nag da ngay te ku bëgg xamit da gëstu man nekk naa ci réew mi liggéey ci télé juróom-benn at bi président Macky Sall di falu ci télé bi maa ngi ci bi mi ngi ci bopp réew bi ba tey te ñaan naa yàlla yi bu demoon ba mandat bi jeex muy defi leneen mu bàyyi woon télévision ndax amul lu dul télé te mosuma bàyyi xel ne def na lu ñu toll ci nit ñi dañuy gëstu dëkk bi metti na dëkk bi nii la dëkk bi laa président Macky Sall fa mu fekkoon dëkk bi jëlee na ko fa yóbbu na ko feneen fu gën fa ko fekkoon yóbbu na ko feneen fu gën a neex fa ko fekkoon yóbbu na ko feneen fu gën a baax fa ko fekkoon kon nekk ci réew bi te ñàkk koo jàppale man nag maa jël sama responsabilité bopp gannaaw ba ma ci waxtaanee autorité yi ma ci war a waxtaanee waxtaan ci kilifa yi ma ci war a waxtaanee dama pare pour engagé wu ma lu ne maa jël samay responsabilité fas yéene jël sama tànk bii sama loxo yii sama làmmiñ wii sama jëmm ji ak képp ma am muy soppe muy xarit muy am di jàll muy dëkkandoo ngir ñu duggaat fi nga xam ne mooy ci biir réew mi bawuñu région bawuñu capitale bawuñu département lu mu sori sori sori sori pare nañ pour taal suñuy oto def ci suñuy essence dem dajale population ba nekk ca gox ba jëm woo leen ñu ñëw toog ñu wax leen jëfi président Macky Sall ci réew mi ba ñu xam ne may ko président Macky Sall